ayca ayca ñu ngi ci weer woo xam ni weeru cadeau la weer woo xam ni weeru fête la le mois de décembre donc comme ñëpp neen koo xamee di kontaanee ñëpp fi nga xam ni fa la ñu nekk bu ngeen gisee ni ñu toogee tey xam ni gis ngeen concept bu bees tàq nga xam ni moom la ñuy wax Sénégal Teranga waaye gis ngeen une nouvelle émission boo xam ni mooy miroir fin d'année euh, une émission boo xam ni c'est une émission cadeau mis ngeen heure bi ay ndaanaan yoo xam ni dañuy taxaw seen kanam di leen bégal da ngeen di kontaan lool lool lool waaye xam la télévision Futur Média saa su ne yokk cere daal di dolli daal leen di indil concept bi nga xam ni mooy Sénégal teranga di concept bi nga xam ni li ñu wër lépp di ay cadeau li ñu wër lépp di ay teranga yéen yéen ko moom waaye maa ngi ci ñëw ca kanam di leen wax ni du ma ci wéet benn yoon fi ma xool nii fa lay xool daal ni ko salaamaaleykum moom dërëm noo def. maa ngi fi Abba. yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmm bu baax a baax am mbégte kontaan rek jàkkaarlook sénégalais yi ni ma ko daan defee altine bu ne rek li nga wax rek yokku cere dolli ñeex te chaque jour rek teraanga Sénégal la ñu wax ah lu bees tàq tàq lu kenn dajjeegul ci paquet lii la ñu def loolu laa la faye mbaa bég nga ace <laughs> kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax donc ma demaat ci beneen daam donc euh, donc euh, loolu la ñuy wax ah dañ ñaan fu góor toog rek boo bëggee toogaay ba neex dangay ah, da ak ay ñi nga xam ni ñoom ñooy ay jigéen donc nag euh, bu ma nuyoo ki nga xam ni moom mooy dërëm damay wëlbatiku daal ni ko salaamaaleykum Mado maa ngi lay fay Aba am contenté bu baax a baax bokk ak yow li nga xamante ne moom moo di plateau seetu bi miin ko nag li nga xamante ne ñoom ñoo di coordinateuru télévision Futur Média comme ni ñu koy waxee seetu askan bi waaye waxoon nga ko ca ndorteel ba tey xam naa ne ginañ gis seen bu bu bu baax seen bopp ci li nga xamante ne rek moom nga tàmbali ndax da ne émission cadeau kon baax na. c'est une émission cadeau ci kaw boobu nga xam ni mooy la télévision leader la télé euh, la TFM donc noonu rek lay demee waaye euh, émission bi day émission boo xam ni daf leen di gunge tout au long du mois de décembre waaye dañuy ànd ak yéen ci miroir fin d'année miroir fin d'année bu ma ko waxee yor nañ ay loo yor ay teranga yor xeeti baax baax waaye ma ànd ceeg grand bi nag eh, ndaanaan loo xam ni dootuñu ko présenté réew mi mais <laughs> perlo wax. Eh, kontaan na si rek Aba xam nga xam nga sëtu Moutou Fane te jama borom ko ko yàgg ne ca daw me ah. day wax naan picc bala ñor dëgg tànk yëg ah, waaw waaw waaye plateau balaa neex dëgg plateau balaa baax dëgg yooyu ah. <laughs> eh, mel na plateau bi <laughs> donc eh, donc mu ngi noonu mais waaw mais père li dina neex de yée dina ëpp ndax xam nga boo nee teraanga Sénégal waaw xam nga kenn ku ne xam na ne Sénégal teraangay kese la mhm. waaye Futurs Médias moom mën naa ni sax moom teraangay Sénégal ji dañoo bind teraangay Sénégal mais moom teraangay askan wi lay def maanaam benn benn leen ko kenn ku ci télé bi. Mhm. di gisee sa bopp nag noonu ci bagage yi. waaw <laughs> waaw <laughs> ndax dégg nga ay waxi wolof Ndiaye la euh, moom wolof Ndiaye moo ni koo xamul ni ñu koy def ni mu la def euh, noonu moo tax moom mooy la télévision Futur Média le groupe Futur Média laay wax daal di delloo askan wi bëgg delloo askan wi njukkal moo tax mu indi leen loolu nga xam ni moom mooy teranga askan wi indi na ci lu nekk rek lépp luy xeetu teranga ñu war a ànd ak yéen 2 mois 15 jours maanaam 75 jours yoo xam ni di ngeen fi yoo xam ni day fees dell ki xaalis 25 50 100 ba 200 francs waaye di ngeen ci ànd ak loolu nga xam ni dañ leen koy may euh, muy ay cuisinières yoo xam ne doy waar ay mhm. frigo def ci euh, langaale ba saf ci sàpp waaye ay chambre à coucher yoo xam ne ay chambre à coucher complète lay nekk yoo xam ni bien raffiné yéen tamit ngeen mën ci di yëg seen bopp ah, li nga xam ni euh, moom mooy ay ay ay ay li nga xam ni mooy iPhone gis ngeen iPhone 11 ay parure en or ah Mado yéen it ay ay ay yéen it mën ngeen a ñëw ku ci nekk ah, wax li nga xam ni moom nga tiim tubaarkalla macha <laughs> wax li ay ca uh-huh. mm, Uh-huh. dernière génération. maa la wax lii ah, ay ay ay ay ba pare ay week-end Mmh. yoo xam ni da nga ah, koy am euh, fi nga xam ni moom mooy ca ca ca ca nga xam mooy ca Petite Côte ba mmh. Mmh. Ah, wala ay concert Youssou Ndour nga mën di ko assister bitim réew la un séjour de concert de Youssou Ndour yaa ngi dégg buñ la bu dee biir Sénégal rek neex na waxatuma laaj nag ñu ne daggal la billet avion yóbbu la jëlal la hôtel jox la lekk jox la naan concert ba jot nga taxaw Youssou waayal la nga fecc eh. waay dàqati na neex waay ëpp na tubaarkàlla macha allah loolu ke eh, tox su bënn lay doon bu saañ bëri rawatina nag la wax ak teraanga Sénégal xool leen guroloo bi ay ca guroloo baa nga ne may seen nan ko xool ana fu mu ne ana mooy 3008 euh, ba wan ma oto bi aba wan ma oto bi oto bi oto bi man la ma doon gënal ah. ñu indi woon caabi ji ban ah. xam ne lii du oto fowukaay ah. maanaam bu ko defee dem ubbi xoola aba est-ce que du doon neex oto bi maanaam dem ubbi taal ndax xam nga attention gars yi mën na ne dañ ko monté de per léegi per yow mën ngaa dem ci oto bi dañ gaa yi tam ñu ne tam ñu ne tam ñu ne ana caabi wax nga dëgg wax nga dëgg jox leen ma caabi oto bi xam nga day leer tam ñu ne tam ñu ne dañ gaa yi dañ koo monté dëgg la oto baa ngi nii ana ana ku yor caabi ji eh ma per caabi ji dëgg la Sénégal daa mën a weddi <laughs> mais joxal ma per caabi ji. ana caabi ji ku yor caabi. ay joxal leen caabi ji euh, balaa ñu yegg ci per euh, ngeen joxal ngeen joxal ma ko li nga xam mooy caabi oto bi. ma jox ko am fi ma taxaw ni nag yéen ngi may gis ba tey ñu ngi ci teraanga gi yow mi nga xam ni. yaa ngi seetaan nekk sa tele bu leen neexee seen télé bu leen doyatul. mën ngeen ñëw fi fekk ñu fi ci wakam ci won euh, ci monument de la renaissance. ngeen daan ñu fi fekk per. waaw waaw. an sa caabi yegg si na anam mi ngi ñëw mi ngi ñëw xaara mu ngi ñëw ci yow donc gis ngeen li nga xam ni moom laa tiim euh, mën ngeen di ci wootee mooy les régions du Sénégal euh, gis ngeen li nga xam ni euh, moom mooy Fatick gis ngeen Kédougou yéen a ngi koy seen gis ngeen waa ndakaaru gis ngeen waa soor Matam a ngi noonu ak Diourbel waa Kolda Kaolack Louga <laughs> Tambacounda Thiès Saint-Louis nga wooma ma ubbi la cage. cage ah. bu nekk su ma ko ubbee. abaa am na surprise boo xam ne per yaa ngi say clé. abaa caabi jaag si na. waa Pes dama may ma yeggal lii per. waa maa ngi woon fii waaye tamit yaa ngi may dog rek. abaa vas <laughs> mu ngi nii euh, li nga xam mooy samay cage cage boo ci ubbi rek gis nga am na surprise boo xam ni moo nekk ci biir boo wootee euh, dinaa la wax ban cage laa lay ubbil ma daal la koy ubbil ay loola yoo xam ni lépp lépp lépp yéen ko moom gis ngeen chambre à coucher ba ca ginnaaw mm. ah, gis ngeen li nga xam ni moom mooy li nga xam ni moom salon bi gis ngeen li nga xam ni moom mooy parure en or yi gis ngeen iPhone 11 gis ngeen ma man mi sax bokk naa ci loo yi nga xam ni dañ koy maye ak Mado mi ngi nee toog xoolal Mado eh xool leen Mado <laughs> damay maye Mado moom tamit ci loo yi la bokk père eh Aba ajance xoola Aba waaw sénégalais yi xam ne maa ubbi ubbi naa buntu oto yaa ko ubbil sa bopp maa ko ubbil maa bës caabi ci oto oto bi na caw ayca lamp yëpp tàkk ayca père dugal Aba dugg na ayca père taalal abaa toog naa. père. <laughs> abaa xam nga damaa tuuti. père. waaw takkal sa ceinture. xaaral. waaw waaw. xëcc naa ceinture abaa. père takk nga. abaa takk naa. eh père. waaw teel sa caabi. caabi jaa ngi nii. nga taf ci sa gémmiñ léemu. mi ngi nii. père léemul. ayca bisimilahi rahmaani rahim. léemul. bisimilahi waatal. bisimilahi rahmaani rahim. père roofal. bisimilah roof naa abaa. père ayca père juqal. aba aba aba oto ba tàkk na paa tàkk na per aba per waaw bul avance bul arrière déet baal may xoola rek eh, oo oh, oh, xoo oh, aba dimbalee ma ko oo xoo aba per dimbalee ma ko aba wàcc naa frein aya wàcc naa frein ame aba yóbbu naa ko départ aba dem naa aba dem naa aba dem naa yéen a ngi gis ah yéen a ngi gis ah donc du yéen a ngi gis père ah. roof naa marche en arrière arrièreal abaa maa ngay dellu père arrièreal abaa maa ngay dellu père arrièreal abaa maa ngay dellu père def naa parking yóbbuwaat ko parking dem na parking ubbi sa buntu père ayca tiré naa frein amee tekki sa ceinture père ayca tekki naa abaa ayca père ubbi sa fay naa oto bi père wàcc aca aba léegi wàcc naa père wàcc na bi père xam nga aba lu ma dala ok père loo dal xam nga lu ma dal waaw damaa fàtte taal kilim te damaa xam ne oto bi ci naaju lay yendu ah. bu ngeen toogoon tuuti xetu dibi xeeñ yéen <laughs> bu ngeen toogoon tuuti xetu dibi xeeñ yéen ay te yéen yi nga xam ni mi ngi noonu yéen ñi seetaan ngeen lii mooy miroir fin d'année donc c'est normal ak Père Boukhar Mado donc c'est ak ki nga xam ni moom mooy dërëm mais dërëm <laughs> fi mu toll ni ana téléspectateurs yi seetaan looy wax ak ñoom xanaa rek di wax ni nañu woote ci bunt yi nga xamante ni si ngeen di fëgg pour loolu nga xamante ni moom la per bu Boukhar doon def laaw la cat ci bu mu dalagul ndax tubarkalla macha allah teranga Sénégal la ñu wax. ah te Sénégal ku ko xam-xam ci teranga. Ah, xam tamit groupe Futurs Médias yàgg naa ànd ak ñun ci teranga ci def lu baax. léegi nag sama gars yi bu leen ci kenn jiitu. na ko moom ñu ko ñun ah, per da ko doon wane noonu rek. waaye yéen ñi ñuy seetaan ak fu ngeen mën a ne yéen ko moom. da ngeen di woote ci 88 628 22 22 wala nga woote ci 88 628. 72 86. Uh-huh. yéen a ngi may dégg ba tey pareeguma buntu yi bari na 88 628 65 du nu ci yem ndax buntu yi tubaarkàlla macha allah. 88 ah 628 04 05. nga daal di jot ci li nga xamante ni mooy buntu yi des na ñaari buntu ba tey uh-huh. ah ci ñi nga xamante ni ñu ngi seen kër wala fu ñu mën a nekk rek 88 628 99 80 wala 88 628 76 76. ah beneen bi ci mujj mooy 88 628 99 90 mooy mhm. buntu yi nga xamante ni tubaarkàlla macha allah waaye nag ku ne am na li nga àppoo laaj ma li ma àppoo. loo maa ngi jëm ca coiffe bu ma kenn tëye ca lal ba laa jëm di périer. bu ma kenn tëye waaw ana bu ma kenn tëye maa ngay jëm. ana ñu ku ne am nga loo àppoo. jëlal yaa ngi dërëm ma nga dem ca lal ba. maa ngi de li mu taamu balaa tëdd ci bu ma kenn la ne. est-ce bouse rek. aba bouse rek ma ne ko lal bi lal bi ak sedd bi rek nga am. waaw ana ñu jëlal li maa ngay dem de. dara ma ngi doon jëm ci lalam. voilà. lii laa yow rek ci voilà. lii la lii la ah non. kañ la ci jëlee. ki lay sànq aba jëlal lii. waa ku may wettali ngir yàlla Sénégal yi. wallaay lii de ëpp na. macha allah ku ana laaj bi ana ah, laaj bi tubaarkàlla macha allah ma nga ca kër ga muy caat ah. bii nag ah, yéene naa ci ñi mel ni man ñaare li nga xam ne ñooy seen xolu jëkkër ñu ñëw ndax tubaarkàlla ci buntu yooyu ma leen wax kenn jaay ko dañ koy maye teranga Sénégal la ñu wax mhm. ñu ànd ak yéen ci fin d'année bi ci lal bu nooy boo xamante ni mhm. tubaarkàlla macha allah da ngay bondé jëlal ma sama coiffeuse jëlal yaay ni nga may séen coiffeuse baa ngi noonu da ngay toog seetu seetu Sénégal la ñu wax na mat jëlal lii yéen may gis sénégalais yi Aba dafa mel na nga noppi de ana per da ngay mën a taal maa la gën a dee mm, mm, mm, fii ngay toog daal di defaru ba mu jekk ayca jël sama armoire six battant yu amul fenn yoo xamante ni tubaarkàlla macha allah Mado yow am nga loo àppoo ñëwal ci li nga xamante ni mooy salon bi complet la ñu wax daagul ndànk ñu gis la nga a ayca ñëwal ñëwal dërëm doguma Ah. te nee nan bi waaw am na ne ci bunt yoo xam ne bu la neexee boo ubbee loo ca fekk yaa ko moom laa ilaha ah. illallah ah, waaw kon Sénégal yéen a ko déggandoo loo fekk ca biir yaako moom ñi ngi noonu gis nga six battants yoo xamante ne mucc ayib lool tubarkalla macha allah ñun daal defe naa ne seetu Sénégal euh, wàccoon na ak askan wi teraanga la ñu wax te teraanga gaa ngi ma nga noonu acamadoolo ako kon ni nga ko waxee rek dërëm tubaar fakalla macha allah tombali nañ ko nag tey ci suba fi nga xamante ne moom moo di yeewu leen wax nañ leen ko yëfi nag du ay ndaxee baay macha allah te wax nañ ko saal moom balaa neex nga toog ci dacc loo xamante ne moom moo di fauteuil boo xamante ne dafa confortable te ni ma leen ko waxee woon ci suba si rek tey boo xamante ne tubaar fakalla attal na madoo day fekk tey boo xamante ne qualité la fauteuil yoo xamante ne boo ko tegee ci saal wala ko dugg ci sa biir saal dina xamante ne macha allah amaana da nga choisir nga nga xamante ne moom moo gën waaye saal boo xamante ne day ànd ak table ànd ak buffet fii lay xewee li nga xamante ne nag moom moo di télévision Futur Média wax nañ leen ko seetu askan bi tàmbale nañ ko nag ak yéen waaye fi mu ne nii defe naa 2010 ba 2019 fii ak 20 ans yi di fii ak 10 ans yi di ñëw ci 2020 xam naa ne Sénégal dana yëngu waaye fi ne nii def leen rek li leen Aba wax woote leen te xam naa ne ku ko woote doo ko rëccu n'est-ce pas Aba ayca ku woote rek euh, mënoo ko rëccu benn le uh-huh. temps euh, ñi am ay téléspectateurs yoo xam dañuy ne ci ligne mën a am ci loo yi nga xam ni moom la télévision Futur Média teg le groupe Futur Média parce que RFM am na ci li nga xam ni moom mooy li nga xam ni moom mooy Sénégal Teranga waaye King FM tamit am na ci ba ci TFM donc c'est le groupe Futur Média nañ dem xool benn clip te ñëwaat léegi léegi ci plateau miroir fin d'année ngeen gis émission bu bees waaye gis émission bu neex gis ay cadeau yu bare bare bare ay ca clip ñu ñëwaat ci ay ca mu ngi noonu euh, ngeen euh, la ndax heure wax lu ñu dagg tey amul journal amul information amul dara ñoo fi toog ñooy wax ba mu neex ñu APR wax lu ñu neex loolu leer na waaw wax lu ñu saf xam nga xam nga tubaarkàlla waxtu yu ñu toll nii uh-huh. ak ngelaw lii di cof nii ak fii ñu toog ci monument bi te xam nga sànq nee naa maanaam ku toog sa kër maanaam li ngay seetaan ci télé bi doyu la li ngay seetaan ci télé bi doyu la ngay nattable naan noo kii est-ce que abaa la kii kii ci nel bi ak nii mu leeree non APR Ah, ah waaw déedéet waay waxuma ko. waaw waaw waxtu mujjee naa dëgg de. mbaa nga naan mbaa nga naan kii est-ce bi. kii est-ce que père la ñëwal fii ci monument père yeggalil. yeggalil waaw loolu laay wax ne la bu la ak foo mënti nekk ci Ndakaaru. Mhm. foo mënti na ci Ndakaaru. Mhm. jëlal bis mbaa car rapide wala nga jël kalandoo wala tax boo gë boo yàkkamtee. baa nga dox nga dox fekk nu fii ci monument affaire bi en live en direct la de. nekk nu de enregistré di kii ak yooyu noonu de en direct la nu ne. en direct kuy ñëw na bu la neexee boo rombee bi jëlu ndox. waaw ngay daal boo nu mënee dimbale. tuwaar kan la daal man daal damay lancer sama message rek. waaye cadeau laa yor de man daal man daal maa ngi fi yor samay cadeau di ko maye. bii <laughs> ah, cadeau la. Ah, waaw yow mi nga xam ne yaa ngi seetaan boo bëggee cadeau. kodo kodo. Ah, kodo la wala kodo kodo kodo la ay noppam moo ko wax an ko kodo ay kàddoom la ba tey kado de ma ne ay kadoom aba ah, wi kodo wona kado de ah comme kodo oh, eyi eh, so woni comme kodo noon joni noon ɗum ɗo miidi ɗum ah! eyi eh. ah ci per yaay tekki <laughs> ah per yaay tekki wala <laughs> ah, nag li wax nee na moom bu ah. fekkente ne bii nag kodo nga ko def moom nangu naa nekk kodo kodo moom mooy nekk ay juróomil wala ay takkoo affaire yooyu ah <laughs> kon déggoowuñu wuyu ma per yow ban couleur ngay làkk ah sama doom ji atte leen ma kodo mooy gan en tout cas muy clair en tout daal ah kodo mooy gan en tout cas mën ngeen ñëw doog heure bu leen neexee ngeen woote ci numéro yi nga xam ne moo affiché wu seen ay suufu écran euh, ngeen mën ñoo jot di waxtaan ak yéen ngeen ñaan seen i ay dédicace ñu may leen waaye ñu xool ci li nga xam ne mooy teranga yi nga ne moom lañ ci am euh, daal di ci ànd ak yéen mais dërëm heure bi uh-huh. mm, mm, mm. heure bi xam nga jeeg ji ñu ci bari ñu ngi taal nañu reer wala ñuy waaja a taal reer uh-huh. ah, di wax ni nag seetu Sénégal la ñu wax mm-hmm. ku ci xool rek gis sa bopp te fi mu ne nii day waj sedd sedd bi dugg si na gars yi nag goow yi ak ñoom seen nag ci néegi da ciy baax bi heure bi mu ah ñu ci bari de service yi 4 heures ñu quitté waaw bopp bi métti ak lépp rek ndax xam nga jéegu Sénégal nag teraanga ji ñuy wax ci kër yi la njëkke sa boppay métti moo tax waaye teewul doo dem de tax na ma bëgg a yee gars yi pour heure bi ñu préparé ku ci nekk daal di dem boyale rek jëf gooye bi bi nga ne amul parfum génne xet bi ba pare doog a yu neex yi seetu bi daal di dikk ndax seetu Sénégal la ñu wax dikk nga ci li tax nag abanaan bopp bi day métti xam nga boo tàmmee yenn heure yi ngay xeeñ ci cuuraay dëgg la ak di sieste per heure ah. boobu jotee per heure añ boo añee ba pare per da ngay tëdd ci néeg bi waaw di nelaw ataaya bi di fa fekk lépp di la fa fekk maa contrat boo xam ne xamoo contrat doon maa la wax heure bu leen neex dañ lay woon ne la jóg bërëb nga jóg dem ah, mais dafa am ñoo xam ne aba romb nit ñi boyal aba <laughs> dafa am ñoo xam ne yow yaa ñi la jël contrat boobu pour teg la fii uh-huh. loolu lañ ci xam uh-huh. moo tax ñoo am na ñoo xam ne bu ñu xoolee abaa rek mm-hmm. moo leen a ataay moo leen dàqal làng loolu tax ñu teg la yow nag abaa ndax seetu askan wi day rawati ñu xool dërëm ah day rawati ñu xool dërëm xool Mado di xool per xam nga ni loolu mun leen koo fay la télévision Futurs Médias ah Mado bàyyi ma taxaw ni xool ba xam am na kuy dugg ci ligne bi waaw kenn ñëwul malaaj ma doo heure bii bu ngeen nekkaan seen plateau. ci waxtu wi daa ngeen nuyu ñu baax. waaw dama leen daan seetaan ñaan dégg ngeen ne nuyu ay nit ñu baax. ñoo ñan la xanaa nuyu rek ki nga xamante ne moom moo di jëriñ ngoone maalo ba sama sama rakk jooju nga xamante ne dafa gën di as su mbay doomu maritu añ boobu kooku moom saa su ne dañ koy ziyaar waaye gis nga rek Abba léeg-léeg nag damay dem sama xel day dem ci nit ñi nga xamante ne dañ ñoo sopp rek te yàlla tax te ñun duñ leen gis duñ leen xam saa su ne bu ñu taxawee ci waxtu bi amaana dina leen fekk ñuy kàbbar te bu ñu kàbbaree xamante ne ñoom ñoo nekk ci tale bi di leen di ñaanal kon nag ñooñu ñu ngi leen di ziyaar sama xel dem na bu baax ci ki nga xamante ne moom moo di Chérif ay dara borom mouvement euh, Sevinatu Najat bi nga xamante ne moom moo nekkee fee Daara Jolof donc kooku nag moom ñu ngi koy jox bu baax li nga xamante ne Abba moom moo di wàcc waayam Mm-hmm. am na solo ku ci ne ci ñun am na ku baax ah, koo xam moo ngi daan émission bi moom Fall tiñ toll nii mm-hmm. femme yee ko dirigé femme moom émission bi dërëm <laughs> ah, nuyu nuyu naa la <laughs> waaw waaw Abdou Ndiaye borom États-Unis mu ngi yónnee ak madame Ndiaye ne ñu ñuy seetaan di la wax ne Abdou Ndiaye ñu ngi lay ñaanal dalal jàmm ndax ñu ku ñu mas ne dalal jàmm rek dal nga jàmm du nuyu ki nga xamante ni mooy Yaya Camara foofu ca Pikine ah borom ah, Mina boutique fashion di la bégee bu baax a baax ñoom Pape Ndour heure bi waxtu wi ku ci mel ni ay dëggay Fass Mbaaw waa yëmbal ñëpp dañuy taxaw rek daan seetaan li nga xamante ni mooy seetu bi di suñuy fans di wax ne tey nag lañ leen di gën a nuyu rawatina maam roqoy cuun bàyyi xaali di la bégee bu baax baax bu jóob saa ñoom ñëpp dañ leen daan nuyu te waxtu wi ñi nga xaar seen i nuyoo tey nag nuyoo bi dafa ala dawme ah. ndax dañ cee ànd ak suñuy càmmeñ ci mel ni Aba ak per bu xar ñu daal ñëw rek dooleel ñu te tubaarkàlla macha allah defe naa ne nii ñu ñu dooleele <laughs> sénégalais yi kontaan nañ ci ñun kontaan nañ ci am mbégte rek nag di oh. pelloog ñoom saa su ne ndax mm. yàqu ñu ci kii bi de dañoo doole xar mi karaw ah per ah bu doon abaa rek la sax ah, ah bu doon abaa la sax mu neex waaye dañ cee yokk ka nga xam ne mooy per bu xar xam ngeen ni stress moom du ngeen ko am bu ngeen añee ba noppi da ngeen di seetaan la télévision Futur Média di seetaan miroir fen dane seen xol di féex bay bëgg a dee per bu xar toog ne ca wet ga di wax lu ko saf per loo wax nga ni <laughs> mani ziar bu baax a baax man mit sama sang ba <clears throat> doomi Cheikh Mahfou Dia ah. doomi Cheikh Mohamed Fadel moom Cheikh Mahfou moom Cheikh na Cheikh Sad wa xayar Chérif Alwali Maane Ndiaye. askay ah, Chérif Saaya Aydara sama sëriñ ba sama papa ja. Mhm. Chérif Maxfu Chérif Ba Aydara ne ca Ngumba Ngewul. xam nga tubaarkàlla man damay wax ne réew yëpp Sénégal ma ci gënal. Mhm. waaye dëkk yëpp it nag Ngumba ma ci gënal. Mhm. tubaarkàlla ñu juddoo fa yaroo fa màggee fa. ñu ziar waa kër seex na Cheikh Saad bu ya fa ne. jox leen seen wàccuwaay. ndax nag nee naa la tubaarkàlla xam nga réew mi dañuy réew moo xam ne bii ne saa ne man bu ma ne bëxër ñett Mhm. damay dugg ca kër kilifay diine jox leen seen cër jox leen seen wàccuwaay raam sama samay wom sukk ba ca ñoom jox leen cër ndax réew mi tuwaar kàlla ñoom ñooy reen yi abaa mhm. sëñ Abdou Karim Mbàkke fa lilu sama xarit ba sa waa ji sama xarit ay ma lay gis ma lay gis boo ñëwee ci wetam ndeysaan boo sukkee ci tànkam rek day ree eh! ndeysaan kilifa yi te ñoo soxla ñu mel ni per toog nanu ma ni ko ma ni ko nun dey xam naa ni fekkewunu jamonoy Sëriñ Bamba fekkewunu jamonoy Serigne Fallou waaye fekkee nan sa jamono ma ni ko fekkee nan sa jamono sëñ bi mu xool ma ma am lu ma ko may mu ree ma jug taxaw ne alhamdulilahi rabbil alamin gaa yi na teqen mën leen ah ku reetaan loo sëñ Abdou Karim mooy reetaan loo nga Serigne Fallou te boo reetaan loo Serigne Fallou reetaan loo nga Serigne Bamba boo reetaan loo Serigne Bamba reetaan loo nga yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ah pel kon day askan nga reetaan loo Ah! aw xeet aw xeetu lëmm giir bandi yëpp reetaan nañ xaasim a xuraysin yëpp nga reetaan loo per kenn du yow reetaan loo naa sëñ Abdou Karim wallaahi génn di dem ndeysaan am ca taalibeem ya ndeysaan xam nga taalibe yi murid di danoo xër am ca koo xam ne bi may dem bay dugg sama oto bi mu ne ngut ngut ci poos bi bi mu ne ngut ngut loxo bi abaa gis nga bi mu génnee mm. bi mu nee ma ko dir dem na ba sama oto toog ma nee nii ba xool ko man génn naa di wër waa ji ba xam daa jaawale poosé wala déet <laughs> eh bien eh bien avant perdre yéegale ah euh, ñu beneen clip ñu ñëw ndax xam naa ni am na ñu ne ci ligne bi ñu mën leen a jël daal tàmbali suñu waxtaan ak ñoom père bu xar moo retallu suñu Abdou Karim am ku daanu lamb poos ba daal di jox père père lekk na xaalis ba mu jeex ñëw di ñu ko nettali père ñun ñi la yem ah dafa mel ni am na ku ne ci ligne bi salaamaaleykum xaaral ma wax allo waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen yendoo ñu ngi nii rek yendu ci jàmm rek ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax. yaa na yàlla xeb dool yaa yàlla xeb dool yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax maa ngi sant bu baax. mbaa lépp a ngi dox. waaw alhamdulilah mi ngi dox bu baax. yaa ngi kuul. waaw maa ngi kuul waaw maa mën naa laa laaj. laaj ma daaw ma wax la. yow tey heure bi nga yeewu tey. ah. ban heure nga yeewu tay tey. ah. bon yeewu naa quatre heures du def juróom benn rakke naafila. ah. toog ba ñu ma def ñaari rakki fajar. non yi nga xëcc yëpp day sori. yow yii nga fii nga xëcc yëpp damay laaj damay lay laaj. <laughs> seetaan nga yeewu leen waa wala déet. Ah, wa ah. <laughs> ndax seetaan nga yow mi bu ma la bàyyee nga ay quatre quatre heures du matin ya julli ñaari bu ma la bàyyee nga wax ma lan nga reeree yow. yow mi yaa léegi yow waa léegi kan jëm droit léegi yow yow seetaan nga yeewu leen wala. seetaan naa seen émission bi seetaan naa ko. yeewu leen. yeewu leen bi. ak Pape Cheikh mu bari wax bi ndax Pape bi moo ma yee. Ah, ok yow ah, ok yow léegi nga ko. seetaan naa ko kay. léegi lii ma lay wan nii. ah. yaa ngi koy gis lii ma lay wan nii. li nga may wan ci télé bi. waaw. ah. naa ko ah? ngi gis lii waaw wala déet damaa seetaano ci suuf bàyyi télé kaw ne wàcc ci suuf da yéegaat de yow il faut nga yéegaat allo ma ne nga yéegaat xaar maa ngi nii di yëg kay ayca ayca da nga koy ñett ñettal escalier rek man mënu maa xaar de léegi maa ngi yow waaw yaa ngi yëg waaw maa ngi yëg waaw foo yem ni maa ngi nii damaa wàccoon ci suuf kay dama doon bañ xale yi déranger ma ci moté bi. ah. <laughs> da ngay bañ ah xale yi ñu ne seen papa ngi ñaan. xale yi laa doon bañ di déranger ñu ne xale yi seen ba papa ngi ñaan. <laughs> ah. <laughs> waaw ayca ayca ayca bu la neexee nga ca kaw a kaw maa ngi lay xaar am naa jot. am naa jot léegi yow. maa maa ngi yëg. est que yaa ngi xool. waaye yow mii ndax taaroon nga sa télé. non kii est-ce que jógewul woon quatrième. Ah, ah kii ah kii yéegam bi sori na de. <laughs> léegi bàyyi ma bàyyi la yow ak euh, waxtaan ak euh, ñi nga xam ñoom ñoom per ak ñoom madoo ba nga yegg ba yegg. waay waay ma ne defal na bàyyi ak ñoom per ñoom Mado ñoom dërëm boo yeggee ba yegg après man ma jiraat la. koo may ñoom per ñoom per per ay ca per ay ca mën nga ko jël sa waay ah, waaw jàmbaar. jàmbaar. per bu xar benn. waaw. waxal ak man waay. <laughs> lu mu ne. waa sëñ bi. sëñ bi waaw. yow xanaa quatrième étage nga jóge woon wala cinquième. waaye yow man ma ubbi ma bunt bi yow. oui yow. <laughs> léegi mu yegg léegi mu yegg <laughs> léegi mu yegg. allo dégg nga. kon àgg na. allo allo. waaleykum salaam. waaw kii ngi soog a wàcc. waaw yow waaw. waaw. est-ce que yegg nga. allo <laughs> du perde man la bul bul bul la bul léegi yow allo est-ce que yegg nga maa ngi nii ci buntu appartement bi kay waaw ma per waaw wuy ma perki ah, maanaam fan la télé bi ne ci appartement bi ci néeg yi wala ci véranda bi wala ci salon bi ci ci fi la télé bi ne ah? fi la télé bi ne foo yem ni yow foo oh ñun eh ñun du ñun yow yow yow du ñun rek lay xaar ak téléspectateurs yi yow ñu ngi ci ligne bi nga jël sa temps nii ñëpp ak lay ñëpp non Aba Aba kii est-ce que dégloo wuñu rajo waaw kii est-ce que dégloo wuñu rajo waxal ak oh, léegi xam nga allo dama lay rokorose yow ba nga yegg nga woote waat yow lay rokorose <laughs> ba nga la boîte vocale <laughs> kii bi yaa ngi xoola yaa ngi def lu la neex yaa ngi mal mëne mani yaa ngi def lu la neex mani aba est-ce que moom comprendre na li nga ko wax allo sang bi bi yaa ngi may dégg maa ngi bu baax xam nga lan la bëgg dafa bëgg nga dem jege télé bi pour mu mën a wax ak yow loo xamante ne yow da nga ci jariñu ñi lay seetaane di ci jariñu jege nga télé bi parce que maa yaakaar sa olof yi ngay wax la déggul waaw dërëm mi yaa neex kii na ci suuf bañ ne ko léegi yow jegeel télé bi egg nga egg go kii du ma sa yegg allo waaw xaaral ubbi ñu ngi lay ubbi waaw yow lii ndax du yow lii ndax du ay xawma lan cinq buntu kër xomb tëj caabi sànni ko ca mbedd mag ñi war a fori caabi ji ah allo billaay la télévision Futur Média ay Futur Média moo neex TFM yow nit ñi toog kenn mosulaa xaare nu toll nii maa la wax lii allo waaw yéen laay de egg nga <laughs> maa gis naa ko gën a neex per Ah, tey père gis naa ku père da ngeen waaye yow ma ni ma ni nga jël sa temps comme xaar nañ la ba bi kay la xaar rek la xaar rek ba émission bi jeex allo oui yegg nga ay te fer maa ngi leen di kontaane bu baax a baax man moom maa ngi leen di jaajëfal man moom sant naa leen gërëm leen bu baax a baax a baax kontaan noonu ci ànd ak bi ma ànd ak yéen vraiment xaar naa ba sonn mootumaa xaar kii ay te jaa ngeen jëf <laughs> non de eh, de damaa kaay kaay kaay rek kaay ah dimbal kii ko rek non xaar ko rek xaar ko rek xaar ko rek ah mais xaar ko rek allo kii dem na dimbali eh ñun mën nañ koo xaar dem na mais crédit bee ko dul xaar ñun mën nañ koo xaar ñun garaawul <laughs> te bu am na keneen ku ne ci bi ñu jël ko wala pour ñu noppaluku ñu mën a jëw waaj yi génn léegi nañ dem xooli benn clip te ñëwaat léegi ci plateau bi ayca nañ dem xooli clip te ñëwaat <laughs> yaa feccul tey yow non mais man mais bii nii bii du woon nii la wala li yàgg na de père li ngay fekk nii dafa yàgg ci boppam yow tamit nag père yàgg naa nag de père li yàgg na de yàgg man mi maa yàgg père li dafa yàgg de man mi bu fekkee am na ku ne ci ligne bi rek naa ko jox ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne duñ ñun sax du man ak père duñ ñun may père duñ jël du yoon jigéen ñi ñoom ñoo jël parce que am nañ fi yeneen i xeetu teraanga yoo xam ni ñoom mën nañ ko may téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ne ci ligne bi donc ma bàyyi laa nag ñoom ngeen waxtaan ak ñoom ay ci waaw waaw wala Mado da ngay jël benn paru tam ma jël benn te xam ne tubaarkàlla macha allah li jeeg ji bëgg rek la ñu yor muy ngalam piir tegal ci sa mbag yéen ñuy xool ay ca pafal wala mu ngi noonu ku ci nekk yaa ngi yor sa parure da xam ne li jeeg di bëgg moo ñu tax ñuy teel a xëy di guddi wàcc lii la ñu bëgg abaa baax jeeg boo gis tey bu sañoon tey bu ibbee li nga xamante ni mooy armoire fekk ca or tey nag li nga xamante ni mooy groupe Futurs Médias defar ñu ko gratuite koo xamante ni mu ngi nii su ngeen wootee ci buntu yooyu nga xamante ne mooy 88 628 22 22 88 628 65 65 bëri na ay buntu yi nga xamante ne boo ci fëggee ñu jox la ngalam bi nga xamante ni mooy 21 euh, carats boo xamante ni tubarkalla macha allah di valeur bu foor fort Mado loo wax yow. mooy li nga wax rek dërëm moom la jéeg ji macha allah mi nga xamante ne moom moo di ngalam saa su ne nit bu ñu yeewoo rek bu ñu seetloon dañu gàllaakoo li nga xamante ne moom moo bi gis ngeen ni ne comme ni ñu koy waxee léegi jamono ji euh, jéeg boo gis rek mi ngi jënd or ndax amaana moo gën di yàq xaalis ndax denci lay doon te ëllëg boo tolloo ci diggante rek tubaar fakkaala boo ci ne ciix dem ci fi nga xamante ne moom moo di ca bërëb yi rek ma amaana daal dinga nga génne li nga xamante ne ne di ko mënee fajee sa soxla kon nag miin ngeen ko euh, mbokku téléspectateurs yi fii lay xewee ci télévision Futur Média jël leen ci numéro yi ngeen xamante ne moom ngeen di gis ci seen bas de l'antenne ngeen woote boo leen du ñàkk dinañ ko jox képp koo xamante ne amaana wërsëgam daf ci nekk dërëm tubarkalla nga la groupe Futur Média nii rek lay def ndax tubarkalla macha allah day bëgg rek li nga xamante ni ñooy ay auditrice am ak auditeur am mhm. ak fépp foo mën a de rek si fête bi nga gis sa bopp ndax lii muy joxe lépp dañ koy soxla ci biir kër yi mhm. muy or bi muy lal yi muy li nga xamante ni mooy salon bi table à manger bi bàyyiwul dara te nag am na yoo xam ne nag abo moom aba moom la apo ak ki nga xamante ni mooy père bu xam nañ leen bàyyi ku nekk rek am na loo apo laaj yan auditrice ak yan auditeur ñoo mën a gagné ci lii ah fu leen neex dañuy woote ah, ah, téléspectateur ak ah, ñuy déglu ci rajo bi ñi ñuy déglu aba wax neexul dégg na neex dama lay wan ni képp koo xamante ni da nga nekk ci groupe bi rek mm-hmm. muy i rajo muy fe eh, nu mu tuddee sax TFM king ñëpp ci biir rek koo woote ak foo mën a doon mm-hmm. Sénégal la ñu wax daal mm-hmm. pour muy clair Sénégal la ñu wax ñëpp la ñu wax gis dërëm yow mën ngaa tooñ mais ah. or yooyu ngeen yor noonu or yi ah. ngeen yor xaw ma kan lañ koy jox ak li ngeen denc or ci seen i kër yéen jigéen ñi ah. nga xam ne Youssou Ndour daf leen a jël aj leen ca kaw jël ñu góor ñu ne danoo nay yàq ñu lu ne li ngeen yor ci or yëpp li ngeen yor ci or yëpp mën ngeen koo denc te xam ne ma Mané moo jël ballon d'or bi kenn du ko jox woo na ay miiru caam <laughs> maa ngi ñëwaat léegi xaaral ma jël ki ci nekk ligne bi te daal di ñëwaat léegi ñu yegg salaamaaleykum ma <laughs> waay ay miiru mu baax maa ngi ñëw léegi parce que maa ngi ñëw léegi so di ma defaree sama tool paa yoroo laam ndax xam nga ko ma ne la tubaar fakàlla yow koo leen bëgg naa xam nga sama yaay a jaam Brasilia maa ngi ñëw xaar ma ñëw mbokk dayu fa demba laa li ngeer maa ngi ñëw ci yow salaamaaleykum <laughs> allo alo oui allo na ngeen def soxna si maa ngi lay ziar maa yaa ngi ci jàmm ba yow yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla bu baax sa benn fan su moo lay oo depuis Tëngéej. ah yaa ngi Tëngéej. maa ngi Tëngéej waaw. Rio de Fresco foofu de la sama papa. ko rafal de Rio de Fresco waaw. <laughs> ça va yaa ngi ci jàmm. ay ci amal jàmm léegi ndax yaa ngi may maa ngi lay seetaan ah? tey ci suba. tey ci suba. tey suba waaw. ndax seetaanoon nga yeewu leen. yeewu leen na franchement tuuti laa si seetaan. j'ai pas suivre ma lépp. boobu doy na euh, loolu nga ci seetaan rek doy na léegi. teewu leen laa ci seetaan fin bi bi muy waaj a jeex. loolu doy na li nga ci seetaan noonu sax doy na léegi. waaw moom Pape Cheikh. ah moom Pape Cheikh moomu. waaw Pape Cheikh kay moom dafa am lu mu ci maye woon. waaw yaa ngi koy bàkk de. yaa ngi dugg ci loo xam ni. <laughs> yaa ngi dugg ci loo yéen da ngeen a baax man yéen yaa ngi dugg ci loo xam ne mënoo cee wax lu tax ma may la loo xam ne waruma la ko woon may. non barke Serigne Saliou neel Mado ba Mado rek laa bëgg xeetu maquillage sama xeetu sañseem. kon bàyyi ma bàyyi la ak moom. <laughs> allo ma chérie. oui Mado noo def. maa ngi nii rek namm la bëgg laa gis lool. barke Serigne Saliou maa la raw man mi xëy ba di toog buntu TFM te du ma la gis yow sama yaay moo lay bëggee. yow daa xamal ni fi mu jeex na bis ni ki tey ndax naa la bàyyil sama numéro te dinaa fexe ñu gisante. ah loolu de dina ma neex gis nga daaw maa ngi daje woon ak yow si benn abasho dama lay xool sax ba nga ba ne man maa lay xool mais xam nga rek biir nit ñi mënu woon wax ak yow. dëgg la waaye jàppal ni yaa ngi ci sama biir xool bi waaye ñu delluwaat rek ci li la Aba doon laaj. aja nañ dem wax nga dëgg waaw. na la ci ndorteel ba émission la Teranga la. dëgg la si seen Teranga yooyu laa bëgg parce que man damaa bëgg waa TFM. waaw kañ kon nag Abba ficcil aja kon nañ ñëw léegi da ngay ñëwaat fii ci man euh, donc yaa ngi ak ñoom Pape Cheikh gis nga Pape Cheikh boo ko mayee bët li fi yor ci ay parure yëpp ki yàlla koy jox bu fi tudd ay yooyu ñun loolu buñ ko sax tudd léegi yow. waaw. yaa ngi may seetaan. nan ngay seetaan fan nga may seetaan yaa ngi ci salle bi yaa ngi sa néeg yaa ngi ci couloir bi yaa ngi ci waañ bi fan. Ah? foo may seetaan ne. fan ci salle bi. ah. fan ci seen salle. <laughs> du sunu saal sax sunu néeg lañ ne ñu nekk en chantier léegi ñu nekk si benn néeg mais si ok léegi. waaw. maa ngi lay wan fii nga gis ay cage. ah. maa ngi lay wan yaa ngi gis. waaw maa ngi xool. wàññil tuuti sa télé da ngay wàññi tuuti sa télé nga xam ni euh, da nga may déggee ci li nga may woowee léegi. yaa ngi gis. maa ngi gis waaw. boo mën ci ubbil rek. waaw. naa ko ubbi te li fa nekk yow yaa ko moom. waaw. mais pour mu leer. waaw. bàyyi tey ci suba. ah. ci région yii. waaw. boo ma ni ubbi ci. ah. moo xam muy Dakar moo xam muy maatam moo xam muy Diourbel mbala Louga boo ma ni ubbil nangam rek. nga ma daal di la koy ubbil su ma ko ubbee nag la ca nekk yaa ko moom mais bul fàtte ni tey ci suba bay Cheikh am na benn région bu mu mayee. Ah? boo ñaanee boobu région ba ma mayaat la ko ndax bàyyi maye woon na ko boo fekkul ci région bi dara bul ni région bi amul dara waaw <laughs> léegi yow ma ubbil la ban région yow léegi ci région yi ah. ubbil bu la neex ubbil région yaa ngi nii ñu tëj ubbil <laughs> <laughs> ah, foo bëgg ubbi yow Thiès nga bëgg a ubbi. Thiès nga ana Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ak benn aéroport. moo bu la Thiès Thiès fuy buntu Thiès. ah. ne fu Thiès di ubbee ko. Ah. ubbi naa Thiès fekk naa fi yëf de. ah. ah? am na yëf de Thiès am na bagage. <laughs> waa Thiès li ci am mooy. Ah. am nga pont bu rëy rëy boo xam ni duma ma la ko wax damay dem ci sa fans bi nga xam ni moom nga bëgg sa fan fans bi nga bëgg laa koy jox moo lay wax lan moo nekk région de Thiès <laughs> waaw joxoon na wax na ko joxoon eh ubbeeku na waaye <laughs> ah Aba ubbi na Thiès waaye teel ma doo teel nga wax sa yëf bi la joxal ma am nga yëf nag tubaar fakalla ay ay Thiès wa boobi boobi rëy na boobi daal for na ma xam nga loo gagné anamu allo est-ce que xam nga loo gagné yaa ngi may dégg asta astel astar ma daal yow jàppal ni fi mu nii gañe nga lu rëy ama jàppal ni cent mille francs daanu na bien ama looy wax ni maanaam une valeur de cent mille francs xam nga obala waaw obala ngay dem di nga fa jënd une valeur de cent mille francs macha allah loolu du jeex obala ah, ah, sama doom ji gomis dina la ko waxe fan la féete <laughs> awa gomis la doo. <laughs> ayca ak ñoom Eva <laughs> ñoom mu ngi noonu Asta moom lii ñoom Eva ak ñoom Anne dinañ la wax li nga xam ni moom nga am euh, muy benn bon bu am solo foofu ci Obala nga xam ne da ngay jël ba mu mat ñaar fukki junni yow yaa ko moom donc mu ngi noonu euh, c'est ça lii nag mooy miroir fin d'année euh, lii mooy yeewu leen lii mooy. wareef ah c'est ça la télévision Futur Média donc euh, askan wi ñoo ko moom yéen a ko moom ah, maa la wax lii dañu yàpp xaj bu seddee soof mm. te tubaarkàlla macha allah ah lu ne fang kenn du ko jeex mm. Euh, mm. lii moom dañu fang réew mépp mm-hmm. Mm-hmm. la ñu gis sa bopp mm-hmm. ndax defe naa ne asta moomu fan mado boobu gis na boppam ah na ñëpp def ni asta woote nag ñu daal di jàll ci li nga xamante ni mooy anniversaire yi fi jaar di souhaiter joyeux anniversaire à Salik jigéenu aram Mhm. joyeux anniversaire longue vie beaucoup de bonheur yow loo dund doyul di wax ni rek euh, suñu fans yi nga xamante ni waxtu wi dañuy toog di ñu seetaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee parcelle 1 ba 26 def leen ni kook nga xamante ni ndax région yi bari nañ mhm. képp koo xamante ni dugg nga rek tubaarkàlla ñu ibbil la loo ca fekk yaay borom te defe naa ni cadeau yi bari na lool maa la ah, wax ah? ni lu mu Adama loo wax loo wax <laughs> Mado. Mado loo wax am na loo riil ci suuf waxtaan ak Aba ah, rek mu ne ma Mado tijjil. ñu <laughs> yëf yi rëy rëy ah, yaay borom kon nag man j'espère que région de Saint-Louis moom de ah. danañ ko tijji. ndax man fa laa bokk. ah da bëgg ñuy bi Saint-Louis. bëgg nga ñuy bi région de Saint-Louis. <laughs> da ngaa bëgg Saint-Louis ubbeeku. waaw waaw waaw waaw kon région de Saint-Louis bu dee am na ku duggaat rek mooy xool nag yaa xool région bu la neex tarkalla per. région yaa ngi noonu. ma waaye Louga Louga gii ci monument bii de. da nga bëgg a Louga gii ci monument bi. bëgg nga ah. Louga ubbi. non li may gis ci biir. ah <laughs> ku ko ubbi am lu rëy. <laughs> man de fi ma dëkk la man de man de fi ma dëkk moom xam naan ku ko ubbi fekk fa ay bagages moom. maa ngi Ndakaaru gii. <laughs> Louga gii. mën naa waat ni per. mën naa waat ni. Ah. ah nañu xaar beneen téléspectateur boo xam ni mooy ñëw ci euh, bu ñëwee ñu waxtaanee ko. mais per mbaa xam ngeen ni fi nga xam ni. Uh-huh. Euh, moom la ñu jël daal di koy def li nga xam ni euh, moom mooy suñu village noonu laa uh-huh. ko mën a woowee. Uh-huh. nga xam ni mooy monument de la renaissance. mbaa xam ni lu ne mën na cee xew ak mhm. ak la télévision Futur Média loolu leer na ndax xam nga télévision Futur Média askan wee ko ñor mhm. loolooy waral saasu ne lu jub si mhm. ouverture yu école sax bu jubsi see mu indi loo xam ne bii ne maanaam élèves ya xale yaak prof yaak yëpp dañ ciy gis seen bopp day dem ba inscrire ay animateur day dem ba inscrire ay animateur neen jàngi leen waaw koy bàyyi <laughs> moo tax gis nga bi décembre jub see ah. kenn ku ne xam na ni démb la premier dëgg la tey la deux mu ne damay àndandoo gaay ci décembre bi maanaam di leen ko defal ay xéwal ak ay teraanga dëgg la père ndax kenn ku ne décembre bi célibataire yaa ngi fi te célibataire yi léeg-léeg nu bëgg loo xam ne tubaarkàlla day jafe lool ca ñoom duñ ko mën a am groupe Futurs Médias ni leen déedéet bu leen am lu leen naqari bu ngeen am lu ngeen di xalaat maa ngi fi yéen ngi fi samay auditeur ngeen samay auditrice ngeen donte célibataire ngeen sax donte célibataire ngeen nangu naa ne sedd bi dina leen rey waaye danaa fexe ba sedd boobu danaa fexe ngeen am lal cim wala ngeen am ah, canapé yu baax maa la wax lii wala ngeen am sax mbàjj mu baax table wala ngeen am sax njëgu njëgu loo demee pédicure manicure <laughs> ay salon ay salon ay iPhone 11 ah. mais per dama lay wax am na yu fi nekk ci ay xeetu teranga yoo xam ni bu mu dugg sa kër boo nekkul woon ku am soxna da nga koy wuti de waaw xeeti baax baax yi kër gu mu dugg abaa doguma la mais am na yoo xam ne sax bu buñ la ko dee may est que jarul nu xool ba xam am nga soxnaam déet ah waaw waaw ndax jox ko célibataire moom. ah déedéet ah, ah déedéet waaye ah, mun na ko teralee yaayam. ah, ah sa wërsëg moom. déedéet waaw mun na ko teralee yaayam. père déedéet mën na ko def néegam sax ndax day daas fanaan la ren di day bette. fan la ko soxla di bette. xam nga dërëm célibataire tey ma wax loolu. xam nga lal beeg nam mel mat laa ba ca ne. waaw nooy ma moom pneumatique la réseau yi moom day pompe boppam. <laughs> xam nga tuwaar kàlla nga am célibataire célibataire xam nga tànk yoo xam nga célibataire yoo xar nga ko abaa célibataire tàng ah. nga ne lan ma fere eh, eh, eh, nga may ma ñëw xam nga yéen xam nga yen bi ngeen may jël di ma boole ci lii moon ngeen ma wax ay mag ngeen may booleel et duñ ay n'importe quel mag ay mag yu mage yéen moon ngeen ma ay mag yu mage ay mag yu wax ci suuf moom ngeen ma booleel te man <laughs> xale laa yi xaw ma ko léegi fa nekkoon mooy yéen jigéen ñi ak seen i or yi ngeen denc waaw maa bëgg ngeen génne ko mhm. ñu xool ñaata ngeen yor ci ay grammes yi or mhm. na mu toll kuy jigéen ci nekk ci biir réew mi rek génneel sa or mhm. ndax li Sadio Mané def ci réew mi mhm. ñëpp teg nañ ci seen bët mhm. te li tubaab yi na na nar a def ah. dara rafetu ci ah, ah. bu ñu paree dañuy jël loolu yëpp yóbbu ko ci ay miiru <laughs> eh, Sidi Mariama Amado Sidi Awa Sarr mm. Baye Mouhamed mm. sama jëkkër la mm-hmm. Awa Sarr Sarr saar sama séeréer bi ci am gaal mm. boo demee màggalam da ngay mel ni ku nekk tubarkalla ay meeru Thiam sama chéri boobu maa ngi koy béggee bu a baax bu ñu woowee ay miir ba noppi dañuy ah. woo paa yorolaam laay lay lallaa ko père toog nii ay miiroo ngi ne toog yaa ngi nii toog dugg Brasil yaa woo aji caam ah, sama yaay ja nga xam ne kenn du moom séeri Ibou Niang pikin teg ko ca wet ga njuga ah kay ballon d'or ba na waay jeune bijoutier oh. ah ñoom ñëpp ñu woo bu eh. buñ toogee uh-huh. ñoo leen dañoo bëgg or yi xale yi génne uh-huh. maire yi uh-huh. diriyanke yeeg yëpp ngeen def ko ballon la ilaha illallah def ko or jox ko Sadio Mané teeru ko ci aéroport bi mu wàcc ci aéroport bi ñu teeru ko wala ak moom Ndakaaru bu ñu paree dem Bambali feetu concert am suñu ballon d'or sama rakk jooju liñ ñu ci ay waxtu fi ñu toll nii te xoolal liñ ci xamul ballon d'or bi mm-hmm. dëgg la xëy na Sadio mérité na waaye joxunu ko dëgg mais man jàpp naa ni biir na ma ni bu chaussure d'or amoon mu jël ko lépp door tamit euh, tarkal fi ñun suñu xel ak suñu xol hmm. Sadio Mané mooy ballon door foofu la waxtaan wi yaa ubbi woon maa ubbi woon yaay tëj <laughs> di wax ni nag euh, Sénégal noonu ñu ibbee defe naa ni ah am ngeen ci kontaante loolu ñun bëgg nañ mhm. ndax bu suñu xol féexee rek jàpp nañ ni yéen ñi ñuy seetaan seen xol féex na ndax lii la ñu wax teraanga Sénégal mhm. ah, te teraanga ñi ngi koy jox day fekk mu mu neex leen te mhm. yëg nañ ko ndax tubarkala macha allah du ñu toog rek ba te kenn neewul alo nii comme daal ñunu jara boot la ñuy wax di wax ne tey maa ngi àndoon ak ci tëni bi kiñ naan ah, ah, yayaa fële ca Ah, made in Sénégal la fii lañ ko ñëwee boo xoolee danga naan pré la Yaya Camara foofu ca Pikine mhm. ci centre commercial bu bees bi mhm. moo numéro euh, téléphone am ku bëgg robb bu baax boo demee Youssou Ndour wala feneen ci fin d'année bi da ngay woot 77 100 157 86 92 muy Yaya bopp bi nag Pape Seve Pape Ndour borom greffage yi ah defe naa ni kooku l'infatigable la moo fi jaar numéro téléphone 77 706 29 49 mu jox la coupe carré bu ne muut nii la àndee nag yéen nag ci seetu bi di wax ni defe naa ni man daal meru ma te bu ma meru sénégalais yi meruñu mhm. noonu la ànd ànd ak yéen nag di leen dégg bu baax ayca mu ngi noonu ci fin d'année bi euh, na ngeen ko gisee euh, noonu rek lay demee miroir fin d'année a li nga xam ni mooy moom mooy la télévision Futur Média euh, ñu àndoon ci ñun ñëpp nag ba ci ñoom Mado ñëpp Mado <laughs> noo nuyoo woon waa <laughs> nuyoo woon noonu rek xam naa ci noonu lay tàggoo waate rek Abba donc di remercier waat bu baax mbokku maanaam maye yéene da cee am solo ndax boo yéenee nit ki di nga ko may loo xamante ne amaana moom bu ko dabee rek dina xamante ne ki ko may dafa tab te xam nañ ni télévision Futurs Médias dafa yéene ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay téléspectateur am ndax bi ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu kon nag ñooñu maa ngi leen di gërëmaat di leen di sant bu baax waaye gis naa julli tamit chéri David Mbow sama mag jooju nga xamante ne dafa gën kon moom itam ñi ngi koy ziar mais di remercier na ki nga xamante ne moom moo di Amadou Gueye ñu gën ko xamee ci turu Romario nekk fii ci mairie Ngor ñi ngi koy ziar waaye daaju ministère de l'environnement secrétaire am boobu di madame Seynou Gueye moom it def ñu sopp ñu ngi koy remercier et puis Fademba la Linguère moom itam moom moo jàppoon tey ci sañse bi ak waa couleur pop aussi ndikku mi nga xamante ne moom it dafa gën donc euh, à la prochaine Aba mm. waaw di tàggu ñëpp rek na ma ko waxee woon rek ngumba ngewul sama dëkk ba waa kër Cheikh na Cheikh Sad ñu ziar leen waaw joxaat leen seen wàccuwaay ñoom dañ leen di ubbee di leen tëjee toakal ñuy ñoo xam ne da waaw dañ ci ñun sama papa ji ma jur ndeysaan ma ngay toog di ma seetaan léegi la léegi la ma message ndeysaan Youssou Sow mooy ki ma jur man maay taawam am samay rek ñu toog ca waaye boo nu gisee da nga naan ay morom lanu barke yonent bi boo nu gisee da nga naan ay morom lanu te moom te moom a dàq boo ko gisee rek ba ma <laughs> Sow sama yaay corogey sama yaay jama nàmpal ca ween wa moom it ma nga toog di ma seetaan ma ñaanal leen gudd fan ak wér waaw yow papa yaay maa ngi leen di ñaanal gudd fa nag wér ci barke yonent yàlla Muhammad ba ngeen fekkee sama njariñ ndax la ma nam mu ca yéen nag defaguma ko wallaay dëgg la la ma nam mu ca yéen barke Cheikh na Cheikh Saad bu defaguma ko te maa ngi yaan yàlla sunu borom mu sottal ko kontaan ci ñëpp bëgg ci ñëpp ayca mu ngi noonu dénk mu nekk un nouveau concept di nga lay xam ne mooy Teranga Sénégal nekk une nouvelle émission di miroir euh, fin d'année ngeen gis ko euh, du lundi au mercredi ma ci ànd ak ndaanaan bu nekk ñu ñëw toog fii ci plateau bi invité bu nekk nag euh, dina fi ñëw tey ñu daal koy commencé tey ci bismillahi rahmaani rahim di ñaan yàlla daal di koy yeggali ci alhamdulilahi rabil alamin mbay sama waa ji ma nga ca Turquie maa ngi lay béggee bu baax a baax ci yére yi nga xam ni moom laa sol yëpp waaye ki nga xam ne mooy am di cius ca Colobane xam ni moom lay def di jox ñëpp rendez-vous ci yeewu leen di ko joxe ci wareef waaye di ko joxe ci miroir fin d'année c'est la télévision Futur Média c'est le groupe Futur Média nga FM ak li nga xam ni moom mooy RFM yëpp rek ci biir ay cadeau yéen a ko moom yéen a ñu ko jox dan leen koy delloo ne ko wolof Njaay waxee rek noonu la ñu koy waxee lépp ñëpp la lu ne ku ne mu ngi ci biir jaa jëf ba suba ak jàmm même heure bye jaajëf